président Ousmane Sonko ni ñu ngi tranquillement këram waaye alkaati yi alkaati yi ñu ngi wéy di dóor ay grenades lacrymogènes ngir euh, tasaare mbooloo di topp le président Ousmane Sonko. kon. dóor ay lacrymogène ci convoi bi ñu ngi wéy di dóor ay lacrymogène ci convoi bi ñu ngi dóor ay lacrymogène ci convoi bi ay tir à bout portant ci loo xamante ne mën nañu noonu de retour excusez la qualité du son président Ousmane Sonko ñoo ngi toll fi nga xamante ni moom moo di rond-point di Sonatel di ñu a dem rejoindre ci kër gi

ci kaw pont bi ak pont bi nga xamante ne moo dandoog Sonatel jëm kër président Ousmane Sonko toppaat nañ xale yi door nañ ay ndax moto yi dañ leen wër ndombo moto yi moto yi dañ leen wër ndombo loolu moom moo leen métti doorati nañ ay lacrymogène ñu ngi noonu ci kaw pont bi ngeen seen ñoo ngi noonu de part et d'autre ils sont là ils sont là Sonko. moto yaa ngi noonu yéen a koy seen moto yi la ñuy ñu agsi waaye lii la yàlla ñoo ngi noonu oto président Ousmane Sonko ñoo ngi nii léegi ñu agsi ci kër góor gi ñoo juste du pont gazé ñu à plusieurs reprises on avait un problème technique. waaye tout est revenu à la normale mettez les cœurs mettez les Sénégal askan bi yëpp xam ni li fi xew tey ñoo ngi fii ci pont bi war a rejoindre la tanière du lion président Ousmane Sonko la tanière du lion du président Ousmane Sonko yéen a ngi koy seen noonu force de l'ordre yaa ngi noonu topp ñu fu xale yi génn ak seen ay moto rek ñu lancé ay lacrymogène face à face baa ngi noonu ci kanam mi ngi noonu ci kanam ci suufu pont bi mi ngi noonu ci suufu pont bi gis nga dooraat nañ lacrymogène mi ngi noonu moto yi moto yi de la ñoo bëgg a xañ ñu gunge président Ousmane Sonko waaye moto yaa ngi noonu bënnati nañ beneen yoon door nañ lacrymogène a ci convoi bi mi ngi noonu yéen a ngi koy gis noonu yéen a ngi koy gis noonu yéen a ngi koy gis noonu doorati nañ beneen lacrymogène directement ci abri bi nga xamante ne foofu la xale yi ne woon mi ngi noonu mi ngi noonu dooraat nañ beneen mi ngi noonu dooraat nañ beneen c'est bon mi ngi noonu. C'est ça la démocratie du président c'est ça baa ngi noonu ñoo ngi tiire ay lacrymogène mi door nañ ci ay lacrymogène waaye ñun dañuy jàll oto président Ousmane Sonko mi damay toog damay toog. waaw te ñu lay téye waaye moom. yàlla démocratie. maa ngi wax wax. la démocratie du président Macky Sall. il nous garde et ils en sont fiers. mi ngi noonu mi ngi noonu oto président Ousmane Sonko mi ngi nii au milieu de la fumée des grenades lacrymogènes ñoo ngi nii ak détermination yaa ngi noonu borom yi bënn jiitu nañ il s'apprête à bloquer il s'apprête à bloquer le pont il s'apprête à bloquer le pont koy gis noonu oto baa ngi noonu pour dagg le convoi du président Ousmane Sonko ngi noonu bus bi avancé na nii noonu seen car la ñu avancé pour bloquer pour bloquer li nga xamante ni moom moo di le pont aux autres véhicules du convoi dispositif baa ngi nii. ñu ngi de la sécurité du président Ousmane Sonko bloqué bloqué nañ leen ci kaw mi ngi oto baa ngi noonu bloqué na fii am na beneen bu bloqué fële ñooñu noonu gis ngeen xale yi ni ñu bënnee xale yi bënn nañu li la yàlla dogal nangu leen dogalu yàlla bi ñu topp la loolu yàlla mooy ko ñëpp ngi noonu ils ont bloqué une partie du convoi ñoo ngi dugaat dans la tanière du lion góor gi cité kër góor gi ñoo ngi noonu sécurité baa ngi noonu doorati nañ beneen lacrymogène ci kanamu convoi wu président Ousmane Sonko ci biir oto bi lañ ko dóor bi ci biir oto bi la ñu dóor

ñoo ngi dóor ay lacrymogène ñoo ngi dóor ay lacrymogène gis ngeen ko wetu suma suma mi ngi noonu suma ngi noonu ci biir hôpital bi mi ngi noonu suma lañ dóor lacrymogène dooraat nañu beneen kontaan lañ seen xale bon seen xol la li la yàlla dogal la yàlla dogal fu mu la yàlla moo ngi noonu difficilement on respire président est à quelques mètres je vous dis de chez lui waaye il continue à tirer des grenades lacrymogènes un peu partout ñoo ngi tirer ay grenades lacrymogènes ba léegi alors que dugg nañ cité kër góor gi mën nañ ñu bàyyi ñu àgg dem ñu kër waaye ils ont bloqué le rond-point cité kër góor gi di tirer ay lacrymogènes on est pris en de part et d'autre ñu ngi envoyé ay lacrymogènes sur le convoi du président Ousmane Sonko. c'est le ministre de l'intérieur ak xolam mooy bon